dañ ki sal Sall su la neexee di nga bëre su la naqaree di nga bëre su dee ren di bëre su dee déwén di nga bëre te sooy bëre Karim Wade ngay bëral te dina la daal kenn mënu dara kon bëgg bëre bañ bëre bëre ñàkk bëre daanu kon dañ leen di nuyu ci turu Karim Wade yamuñu ci loolu ndax Macky Sall dafa jël seppi suñu ay doomi ndey ñu bëri tëj leen ci kaso Toussaint Manga mi yore woon xale yi démb la génn kaso def na fa fukki weer Victor Sadio juuf mi ngi ci kaso bi def na fa lu ëpp lu mat juróom-ñetti weer lu ko ëpp suñu doom Cheikh Mouhamadou Bamba Ba waaye mënoon nañu sax ormal tur wi ñu ko dugal ci kaso yamuñu ci ay Jong ci kaso la génne xanaa nit lu muy bon bon bon bon ñun suñu réew suñu aada war nañu ormal jigéen jomb tëj jigéen kasu fu lu mat lu toll ni at tëj ko ba pare atte ko ne deful dara bàyyi ko suñu frère Aziz Diop ci kaso la génnee ak ñeneen ak ñeneen te duma fàtte nag wax dëgg neex yàlla seen doom yéen seen leader seen xarit Mamadou Lamine Massaly moom it dañ ko tooñ ko kaso yamu ci loolu man mii wax ak yéen kaso laa génn dara dugaluma fa lu dul xool makki sàll ci ay bët wax ko dëgg dëgg gi mooy lan mooy réew mi nangu nañu ne ñun ñëpp que Sénégal dafa Macky senegal dafa Macky Ablaye Wade bi mu ñëwee këyitu ñaari junni la indi ñëpp xam ne kayitu ñaari junni am na solo Macky Sall ñëw indi kayitu téeméeri dërëm yamul ci indi kayitu téeméeri dërëm su ngeen xoolee yére yu muy sol fii lay yem ci mbagg yi amul loxo dafa nay tabewul kon wax dëgg neex yàlla kooku soo ko ko waxee day gaaw a